te mu des un naa ci programme bi nous en 2021 quasiment d' abord moi j'ai jamais dit que 48 milliards lañ ci def sama tableau bi ma joxe c' document officiel de l'ONAS document officiel de l'ONAS que je vais vous distribuer à tous qui date de septembre su ma juum 2019 diggante septembre 2019 su dee ils ont fait énormément de choses di n'ont qu'à nous donner des document boobu lañ ca bindoon mooy travaux d'urgence mooy li ñu def première année inondation 28 milliards 500 programme investissement 2014 2017 52 milliards programme investissement 2018 2022 41 milliards loolu moo leen joxoon euh, euh, euh, non ça c'est le montant global d'ailleurs de 122 milliards yi nga xam ne ONAS moo ko waroon def ONAS parce que kii wax dafa ne moom pour ONAS la wax milliards. ñu ne ñoom def nañu première année bi 32 milliards deuxième période bi 2014 2016 8 milliards 2017 2022 8 milliards yooyu boo ko dajalee mooy 48 milliards qu'ils ont fait ñu ne donc ils sont en de faire 15 milliards à Kaolack boo xam ne le financement est en cours en cours boo ko dajalee ça fait 63 milliards ñu ne donc reste à mobiliser 117 milliards. C'est ces chiffres-là que j'ai donnés. c'est des chiffres officiels de l'ONAS. Mais même si on admet la petite différence de petit écart, pour Digone Sénégalais, il y a 750 milliards, plus d'inondation. Et à un de la fin d'un programme de 10 ans, à mon avis, nous avons 80 milliards, Dieu a échoué. Macky Sall a échoué parce qu'il a détourné les priorités. Dans la tour, avec assainissement, l'éducation, voilà. Vous savez, nous avons des xaalis c' est faire des terres pour enrichir les tubaab c' est faire des autoroutes pour enrichir les tubaab la santé l' éducation l' assainissement et je maintiens ce que j'ai dit lors de la conférence de presse bi weesu ci nag 750 milliards yooyu ñu ne woon dañ koy def ci partie bi nga xam ne eau pluviale la mooy su tawee ndox mi ndox mi comment on dit ça ndox mi wal wala ci parti boobu ñoom boo seetee daanaka sax région de Ziguinchor moo ci woon ëppale parce que dañu ne woon période 2014 2017 ils vont mettre 11 milliards li ma la wax ni seen document gis ngeen man ni ma wax ci ñoom rek seen document laa utilisé bis bu ñu weddee ma génne document la rek dañuy wax fraude fiscale à l'Assemblée coow li bëri daf leen def leen site ministère des finances ngeen gis document bi di gaaw ñu dem rocc ko ci si li may wax rek dañoo cuune ils ont dit 11 milliards 030 millions phase 2014-2017 pour la région de Ziguinchor et 10 milliards 963 millions pour la phase 2018-2022 toujours pour la région de Ziguinchor loolu jox ñu un total de 21 milliards 963 millions léegi nag man dama bëgg qu'on soit pragmatique parce que werante politicien ñoom dañuy essayer euh, ëlëb askan wi dañuy essayer nax askan wi ci wax ju bëri Sénégal pour nga am grade politicien na nga am làmmiñ bu rëy am un début oral bu gaaw télé bu nekk nga dem taxaw fa mbër mbër mbër mbër mbër yéen xam ngeen politiciens yi may wax Légui, moi je veux qu'on pragmatique. Nous on a dit qu'on ne fait pas ce genre de politique-là. Moi je donne des chiffres précis. Voir les documents comme nek. Je vous ai dit qu'ils avaient dit qu'ils mettraient 21 milliards 963 millions dans la région de Ziguinchor entre et population Ziguinchor laa bëgg a laaj est-ce qu'ils pensent qu'ils ont mis 21 milliards ici dans l'assainissement mais mieux les politiciens de Macky Sall dégg naa actuellement tous les ministres les directeurs généraux dès qu'on a dit que à Ziguinchor ils sont tous là même les maires en vacances au Cap Skirring sont là <laughs> bref quand vous allez les rencontrer ñëwee vous les population di leen seet laaj leen question bu leer bu simple ñaata la état bi def dans l' assainissement de Ziguinchor de 2012 à maintenant parce que ça c' est des choses concrètes dañ leen wax ñaata lañ fi def avec des pièces man wër naa wër wër wër wër je programme bu ñu ne programme mu 5 milliards la milliards. projet d'assainissement financé par la BOAD pour 5 milliards. Bon, ça avait l'objectif de toucher 20 000 personnes avec une station d'épuration d'une capacité de 300, 3 900 m3 jour et une station de transformation d'eau de d'une capacité de pompage de 140 000, 140 000 m3. 1200 mètres ci 10 ans yi man di laa fi dégg ci programme est-ce que c'est livré je ne xam naa ni daal ba 2017 bi fi directeur général France ñëwee dafa ne woon au plus tard le 31 décembre 2018 ces ouvrages seraient livrés je vois un journaliste qui qui me dit que pas livré merci ah il faut il faut ngeen may jàppale parce que <laughs> suñu gars yi dañoo garaaw quoi.